ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di ndokkeel jullit yépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ndokkeel ci bis yu tedd yi nga xam ne eh, ñi ngi ci ñu ci ndokkeel jullit yépp di ñaan lim ci namm rek sunu borom def lépp te defal ñu tawféex def jàmm ci réew mi def nawet bu barkeel hmm. mbokk yi kon ñu ñëwaat ci seen jataayu gàggantiku bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy amal di ko jaarale ci jumtukaayu xibaaram bii di MKTV ak GMT TV ci ànd ak i boroomi xam-xam euh, ñu gën cee ràññee bu baax sunu mbokk mii nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Abdou Rahman di ku laabiir ci xam-xamam te tabe ci lool ñu ñëwaat fii ci këram ci Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene euh, jot li bind yi nga xam ne am nañ ko ngir war cee ko kon su ko defee sëriñ bi dañ lay jëbal kàddu gi nga nuyoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalallaahu wa alihi wa man wala sëriñ abdoulahat maa ngi lay delloo nuyoo di la siyaar di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaqa di nuyu mbokki daayira bi di nuyu mbokk yi topp at bi yëpp di la jàmm di sàkku ci ñoom ñaanal ñu ko jërëjëf jërëjëf bi jërëjëf it mbokk yi ñuy topp ñu fàttali leen ne Euh, képp koo xam ne am nga ab laaj boo yónnee mën nga ko yónnee ci 78 689 28 28 ci la ñuy yónnee laaj yi képp koo xam ne bëgg nga laaj bi sëriñ bi jot ci ngir mën a tontu euh, sëñ bi suñu laaj bu njëkk bi mooy bokk mi mu ne dafay laaj ci ndax euh, am na loo xam ne daal da koy def ci barab bi mu liggéeyee ba nga xam ne fa liggéey léeg dana am ñoo xam ne danañ ñëw ngir sàkku ci moom mu defal leen dara. xëy na ñàkkul xam-xam bu mu man la waaye fekk na nag mu nekk ci barabu liggéeyu liggéeyukaayam waaye dañ ko lam leen di defal ci diggante boobu dañ ko ciy fay dara mu ne ndax loolu ñu ko ciy fay te fekk moom mi ngi liggéey fenn ci ci ci barab ndax loolu ñu ko ciy fay dana dagan ci moom wala def waaw mu fekkee dañ ko ne barab bi dañ fay ñëw di liggéey waxtu sàngam ba waxtu sàngam mhm. loolu moo tax ñu lay fay nangam mhm. diggante boobu wóoru caa bokk bi beneen liggéey rawatina bu dee liggéey boo xam day jeexeetal ci la ko waroon foofu bu fekkee ne jamono yi muy def beneen liggéey bu bokkut ak bi ko tax a ñëw ci barab bi waxtu woowu fekk nañu soxla woon ko fay su boobu ba ngay tooñ ndax daa daa daa jubóog ki koy liggéeyloo ci nangam ci ay waxtu waxtu yooyu nag kon wuru caa jëlaat lenn di ca wut leneen lu dul ne daa neex ko koy liggéeyloo nga xam ne mu mokk may waaye bu dee ci coobareem rek la mu di ko def mu du ci ko huit heures ngay tàmbali ba cinq su wàccee cinq moom la ci des xamuma ko moom sañ naa dem ci yeneen liggéey waaye waxtu yi mu seqoon nag ki koy liggéeyloo moom matal na ko waaye nag dagg ci waxtu yooyu liggéeyal keneen moom du jaadu te ka koy liggéeyloo àndu jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafay laaj eh, tamit eh, ku ko aaya bi nga xam ne ci la sunu borom di wax wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min axtaabin wa charxin wa naqilin silwaanin wa xayri silwaan tusqa min main waaxidin wa nufaddilu baxdaha ala baxdin fi l akl bi dalika la ayatin li xawmin yaqiluun waaw loolu day aaya la boo xam ne sunu boroom da ci wane sañ-sañam mhm. ak nim nga xam ne nit ñi mhm. buñ ci doon xalaat danañ xam ne yàlla mooy yàlla mhm. ne wa fi lardi qita'un mutajawiraat suuf si am na ay béréb yoo xam dañoo dend sësaloo sësaloo sii nooy nepp loo fa ji mu sax meññ suuf si boo fa jiyee du sax fii ndox dafay taa fii ndox du fa taa loolu yàlla rek man te ñaari suuf yi ñoo dend xamul loolu wutale kon am na ay xita mu tajaawirat am na it jannaat ay tool yi resin la am mbay ak i tàndarama yoo xam ne sinwaan wa xeyr sinwaan tàndarmay seen mooy genn tàndarma koo xam ne date bi benn la waaye ay ñett wala ñaari tàndarma soxla woon nañ ci. Mhm. am na ci yenn garab yi nga xam ne date bi benn lay doon waaye day am ay garab yu ci soxla ko. Mhm. yeneen ak ne benn benn benn date la benn garab loolu mooy xeeru sirwaan te gis nga garab yooyu ak meññeet yooyu seen blaat. Mhm. meññeet yi bokkuñ luñ mel bokkuñ lu ñuy saf bokkuñ luñ toll yi day saf xorom su suukar yi day weex yi day forox yëpp yëpp nag seen suuf lañ sax. te it tusxaa bi maayin waaxid mel ndox moo leen di suuxat ku def loolu wa nufaddilu ba'dahaa 'alaa ba'din fil ukli te it mm-hmm. maanaam bokkuñ nit ñi dañ leen yii ne yii moo moo gën a neex yii moo gën a moo gën a seer te lépp fi mu jógee fenn la bi ab bi mu nekk ba ñoree ci benn bii ab suuf si seen see ndox mi ñu ko mi ñu doon suuxat mi ñu ko doon roosee mel ndox mi ba noppi ñu noppi wuutee noonu mu ne nag loolu inna fi daalika la ayaatin li am xel di xalaat war ngaa yàlla mooy yàlla li mu bind rek ku ci teg teg say xalaat da xam ne lii jékki-jékkul waaye kattanu yàlla ak sañ moo ko amal subhaanahu wa taala sëriñ bi euh, laaj boobu leer na ci mbokk mi euh, mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne daal moom dafay woote ne euh, dafay yéwénal maanaam day jubóole ñaari way diggante ñaari way dencante xam naa ñàkkul mbokk yi xam naa ne eh, nee na daal waa ji daal dafa ñëw wane ne day daleen di jubóole day jubóole ñaari way dencante yoo xam ne am nañ jafe-jafe nekk di dox ci diggante bi ndeke moom daal boppam la doon doxal amul lu dul daal diggante ba mujj yàqu eh, ndeke moom moo ca doon yàq ba mujj takk ndaw sax nga xam ne moom la ko doon eh, wax ne ko yow laa doon jubóole mu ne kooku lan mooy ab attem ci lislaam ci jëf jooju mu def def na lu ñaaw loo xam ne ci bàkkaar yi magi la bokk yonent yàlla mooy salaam nee na bokkul ci noonu kuy dem ci jigéen di fa yàq boroom këram ngir bëgg mu tas walla kuy dem ci góor dafa yàq soxnaam ngir bëgg mu tas nee na bokkul ci nun laysa minna man xababa zawjatan ala zawjihi man xababa imraatan ala zawjihi loolu lu doy waar la ndax rambaajan ki biir jaxasee nga ci jëfi iblis la it nag ñu te salaam nee na iblis saa bu xëyee am na gàngunaay gu muy tëj ci biir géej gi yebal ay soldaaram ñuy wër ku ñëw nag da koy nett li nga def ku ñëw da ngay nett da koy nett li nga def mhm. léeg-léeg ñu waaj wax ko ne ko wax lu rëy na def naa ko mu ne ko ah toppaloo defoo dara nee na benn waaye ne ko man daal maa fekk benn couple man ne fa ba tas leen yàq seen diggante mhm. kooku lay xëcc ne ko waaw saa góor waaye mhm. yow yow yaay jàmba waaw nga xam ne kon jëfi seetaan la ku yàq ay diggante kon loolu loolu moom ci masab Maalik dañuy wax sax ne loolu bu ko nit defee ba takk ndaw sax dañ koy tas ndax moom day mel ne la mu bëggoon lañ ko war a xañ muamalatan lahu bi yi naqidi xasdi loolu ci ci xawaay di jëfandikoo ci ci masab bi la waaye daal lii ko taxoon bëgg tas bëgg ko takk ndaw si moo taxoon mu yàqu ko boobaa nañ koo xañ njariñ li mooy bu ñëpp xamee loolu kenn du yàq da yàqalati kenn ndax dañoo xam ne képp ko yàqal ba mu tasit yow ñàkk nga ko su boobaa waaw loolu de kon mat naa moytandiku bu baax a baax a baax mhm. euh, jërëjëf sëriñ bi bokk moom leer na xam naa bokk mi moom it ay aaya la indi yoo xam ne da ci bëgg ko labiré mhm. bi ci njëkk mu ne sëriñ bi bëgg naa nga labiré ma aaya bi bismillahi rahmani rahim fala taxsibanna allaha muxlifa wa'dihi rusuluhu inna allaha azizun suntiqaam am na beneen aaya bu ci teg mu ne yow ma wala ñu ñu bàyyi nga la leeral bii nag am na buntu nag mu ne mhm. yowma tubaddalu l ard xayra al ardi wassamawatu wa barasu lillahi alwaxidi alqaxaar mhm. mu tegaat ci beneen aaya wa tara almujrimina yowma isin muxarranina fi l asfaat sarabiluhum min qatiraat wa taxsa wujuhum annaar li yajziya allahu kullu nafsin ma kasabat inna allaha sariu lisab mhm. am na beneen aaya bu mu ci tegaat euh, euh, mu ne hada balaaxun linnaasi wala yunsuru bihi wala yaxlamu annama huwa ilahun waxid wala yasakkaru ulul albaab ok tabarkalla loolu ayaat yu tegaloo la ci eh, suñu baam da ci wax mbirum bis penc nee na yonent bi falaa taxsibanna allaha muxlifa waadihi rusula yàlla moo dikk a yonent ne dinaa leen dimbale lu mbir yi metti metti bul jàpp mukk ne yàlla la ma waxoon dafa naru jàppee yàlla muy wuute ab digam li mu digoon yonent yi mukk yàgg yàgg dana ñëw mën naa yeex na yàlla ku tedd la ku mën a fayonto la waaye nag mbiram ci coobare lay dox ci biir nu muy wax nag nañ fàttaliku bis penc yawma tubaddalu lardu xayra lardi wa samawaat bis penc ba dañuy sensé suuf si suuf si ñu xam fii mm-hmm. seen suuf su weex tal reer nañ moo fay am suuf soo xam ne mosi faa tuur deret masis fa mooy yàlla foofu la nit ñuy génn nit ñi bu ñuy dekki dañuy yaramu neen lañuy ñuy dekk waale yaramu neen kuy ñëwit cër cër yu mat sëkk lañuy ñëwaale góor ñu dugal néegu góor sax bu ñuy dekkee woon xeyam lañ daggoon lay dellu si Yonent bi salaam mos na ko nettali soxna Aïcha ne ko góor ñi jigéen ñi jàkkaarloo di xoolante mu ne ko Aïcha bis ba gën naa tar lool foofa ay xool xoolante amu fa kenn koy da nga tar leen dul xoolante dafay sunu borom ñi doon góorgóor du jub lay terale sàng leen awra muur seen awra ña ca des nag ñu bàyyi leen seen gàcc wa yawma tubaddalu lardu xayra lardi wa samawatu barazu lillahi alwahid alqahar ñëpp ñëpp dañuy génn nar a wuy ji benn buur boobaa da gis mujrimiin yi yow mooy seen muqarraniina fil asfaat dañ leen yeew ñaari wax am na ci dañ leen di jëng yeew seeni loxo yeew seeni tànk boole ko njoñ leen jiital leen diin àtte ñoom bu ñu leen yóbbu ci penc ma noonu leen jiitale am ñu wax ne dañuy boole ñi bokk nañu mel kàccoor yi groupe par groupe la doon te loolu sax na ci yeneen ayaat di wane ne bis penc yàlla day peerale nit ñi. peerale nit ñi. wasur ladina zalamu azwajahum pangal ñu tooñ ñi ak ña mel na ñoom ñoom la ñu boole sàcc seeg njaalokat yi ku ci nekk dañuy groupé ñu xam ne ña nga ne and dem gaa ñu baax ña jaamukat yàlla yi ñu boor leen moo tax góor góor lu ci lu baax baax foo mën a jóge ku la mën na jur soo baaxee boo lëgee ak ñu baax yéene ànd moom la wax ne idan nufuusu zuwijat bàyyi leen xel bis bi nga xam ne bakkani doomu aadama dañ leen def ay par ay paire ñi bokkoon nañ mel bokk jëfu ñooy bokk du caaga ne daal ka nga bëgg àndal ngay àndal ka nga bokkaloon def lu baax rek. mel kooku ngay àndal. loolu loolu loolu kon mu di aaya di saxal loolu. Mhm. waaw wa taral mujrimiina yawma idin muqarraniina fil asfar mhm. seen mbubb ya min qatiran saraabiluhum min qatiran. Mhm. maanaam godron lay doon. wa taxsha wujuuhahumu naar. xar kanam yëpp di lakk. liyajzi Allaahu kulla nafsin lu tax yàlla def loolu bakkan bi ni mu fay la nga jëfoon. kon doomu aadama kuy jëf ba nga jëf lu leer. maanaam amul yàlla du tooñ kenn képp ku ñu fa wan dara jëf sa jëfa woon dañuy wax ne ñi mënta jàng fii ci àdduna yomal xam ñëpp mën a jàng iqra kitaabak kafa bi nafsikal dañuy wax ñëpp ñëpp ay jot seeni téere ñëpp ay mën a jàng waaye kenn ku nekk nag li yëg ku li ma kasabat yàlla ku mbir la nit ñi bari bari maanaam bis peñ ci seen blaat hmm. ku yàlla mosoon a bind ma aadama la tàmbalee ba ca kañ mujj bind ñëpp la ñu dayal cëtt bi kenn ku nekk da nga wéeteeg sa borom kenn ku nekk da nga wéeteeg sa borom. kulluhumu aatihi yawmal qiyaamati farda kulluhumu aatihi yawmal qiyaamati farda nag kàttanu yàlla ak seen sañam moo xam ne mu ko defee. hada balaaxul linnaas mu ne lii nag ak jot lii la goo xam ne yàlla bu bettul kenn jox na la mbir yi leer nañ fii la mbir yi mujj xupp nañ leen ci boroom xel yi nañ waaru xam lañ war a def ku sàggan nag topp sa bakkan topp sa bànneex bu ëllëgee amoo lay ndax foofu kenn du wax ne bëggoon dama xamutoon lii yàlla yebal na yonent jox leen téere wax nañ nit ñi li ñu leen war a wax kon su bis penc ba lay jeex. macha allah mbokk mi laaj ay sëriñ bi tontu bi macha allah euh, lu mat a bàyyi xel la yal nañu yàlla soxal ci ak jub euh, bu ëllëgee duñu am lu ñu jaaxal ci bis boobu mm-hmm. euh, sëriñ mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana wér ci jullit bi muy jëfandikoo alal ji nga xam ne dañ ko koo dénk di ci jëfandikoo lu mel ne commerce. gënul ndax wóorul waaye nag bu ci commerce woon mu am bénéfice moom bénéfice am ndax bu àll bu pertoon day fay hmm. waaye nag wóorul te nag dana tax li tax na ci ñaaw nit ki buñ koy dénk dañ ko wóolu. Hmm. bu jotee commerce ba mu yàgg alal jee manqué dana tax bu yàgg yi kenn ko wóolooti. dëgg la hmm. waaye nag bu amoon moom waa ji moom alalam ndax. bu pertee day fay kon bu ci amee bénéfice moo ko moom. Hmm. jërëjëf euh, mbokk mi mu ne ndax dana dagan ci jullit bi mu boole ay julli juróom yu bari ngir fay ko ci genn guddi. kan moo ko wax ne guddi ko dana ci àgg. Hmm. mooy dëgëru fit la. Hmm. kii yàlla ne tisbaar na julli tisbaar yi dara jotu la. ngay naa bàyyi ba takkusaan. kan moo la wax ne da ngaa àgg takkusaan. waaw sëriñ bi naan radiallahu anhu waalam bi ann afdala taati salaatuna fi awali awqaati topp yàlla yi gën mooy nga julli ci bopp wax kon dajale ay julli eh, ba ba waxtu jeex ndax li muy wax nii kon dana ci am julli yoo xam ne da leen di fay bu jant bi xasee seen waxtu jeex na seen moxtaar jeex na seen daru jeex na te képp ku sàggane ak julli ba waxtoom jeex am nga bàkkaar bu rëy wan mi azima zan bi nga ko waxee lil mu axiri xataa tafuutahu dafa nga waxee loolu nanga askan bakkaar bu rëy ci ki yeexee julli ba waxtoo faat ko kon loolu it jaarul ci ab jullit ab jullit daal li mu war a def mooy xam ne dañ ko ënd ci kaw suuf ngir jaamu na fexe ba daal bu fu julli jotee mu julli ba amoon gànt ba nag ndax fi ne julli àgg ci nit ki fi ak yaa ngi ànd ak sa sago mën a laab julli du lu wàcc donte da ngay jaaxaan di xap-xapali bët di ci yéenee rukkoo ak sëgg ak sigi da lay war ku mënta taxaw day taxaw weeru su ko mën mu toog su mën mu toog wéeru su ko mun mu tëddee ndeyjoor bu ko mu tëddee càmmoñ bu ko mun mu jaaxaan bu ko mu def eno lu ñore noonu yàlla nag war naa bàyyi xel teyit nag yowmal xiyaam mu ngi njëkk a seet jëfe yi diggante li dox jaam ñi ak seen borom yonent yàlla Muhammad nee na julli lañ ci njëkk a seet waaw bu jegee ñu mën am yaakaar ci ci des loolu Sëriñ Tuubaa jàngale woon na ko ci wax ju gàtt yom solo waxoon na na ngeen di julli te di ko jubal dee leen julli di ko jubal ndax tàll loxo mu tedd ba radiyallaahu anhu bu ngeen dee julli te di ko jubal dana tax lépp lu ngeen dëngal bu ëllëgee jëli ko jubal ko hmm. waaye moytu leen di julli di ko dëngal dana waral lu ngeen jubaloon bu ëllëgee julli ko dëngal ko hmm. bu julli jëkut dara mën na bañ a jag hmm. nag ku xam da nga jox julli akam loolu li ñu doon wax léegi di ko laaj Sëñ Tuubaa ndax julli na ci géej gi loolu rek taxoon bañ a sàggane waxtu borom moo tax julli ci géej kooku nag comme ne sa jawrin waroo sàggane julli waroo ko woyofal baarakallaahu fiik jërëjëf sëriñ bi euh, mbokk bi dafay laaj mu ne lan mooy àttab ki nga xam ne mokkalut li nga xam ne daf koy wax ci diggante ñaari sujjóot yi maanaam su sujjóotee daal la muy wax mokkalu ko lu def loolu nag ñàkk yi teel sëñ bi laat hmm. ndax lañ ci wax jafewut ay sàbbaal ak ñaan hmm. su ko mënut ci arab mën na ko wax ci wolof waaye jàpp na ne la ñaan gañ baaxoo def nga xam ne ñaan yu mat lay doon moom góorgóorlu bu fekkee mën naa julli bu góorgóorlu tuuti war a mën ñaan yooyu hmm. sàbbal yàlla la subhaanallaahi wa hamdi moo jëg na néew subhaanallaahi la aziim ak ñaan nag ñaan gi bu ko mënee ci arab moo gën su ko mu lakkoo man mën a cee ñaan. macha allah jërëjëf mbokk bi dafay laaj mu ne euh, ban waxtu la musaafir bi di yéene wàññi julli maanaam fan la ko yéene buy génn këram di dem wala ci ban waxtu daal. bu julli jotee. bu day xool ba xam ndax moom sunna mooy wàññi wala déet. Mhm. xam nga nit dañ koy wax ne bu fekkee ne. li nga dox mat na masaafatul xasri wala dana ko mat maa daal yow bi nga jógee sa kër di tukki xam nga ne doo dëpp te doxoo soixante-douze kilomètres ah. leer na la boo xasee génn sa génn dëkk bi nga nekk sañ nga wàññi julli kon bu tisbaar jotoon ci misaal nga jëm Dakar fekk la ngaabu boo taxawee sañ nga wàññi julli léegi nag boo taxawee di julli da ngay yéene wàññi waaye boo taxawoon ngaabu di julli yéene matal da ngay matal hmm. du nag ne la dañuy wax ne ba muy ba muy départ dama yéene wàññi ci yoon yi moo tax mu sañ wàññi déedéet yoon moo lay wax ne la atte bu wàññi dal na sa kaw léegi nag booy julli nga yéene ko soo ko yéene da koy def boo ko yéene woon nag doo ko mën a def waaye nag matal wàññi julli ci ku mu nekk sunna ci moom ni ma ko ak sànq moo gën matal julli ki nga xam ne dafa jóge fii jël abion moom bu xas wàcc ci Italie wala France hmm. euh, maanaam man nay continuer di wàññi donte day fan bi day am fenn foo ëpp ñeenti fan wala yooyu. Ah, barab bu mu nar am ñeenti fan foofa lay matal waaye buy jàllaat tàmbali wàññi. waaye fépp fekkee moom mën nay continuer wàññi ba donte ñaari weer nit ki mën naa doon ak di wàññi seen wa at mën nga ko di wàññi. Ah. mën ngaa ne ci benn barab di wàññi at ndax lan. Mhm. yow danga nga nekk bis boo xëyee jàpp ne bu subaa nga ñibbi. Hmm. gis loolu nga xam ne yow li ngay lijjanti daal day day gàllankoor. sax dem daal ci loolu la aju. te jàpp nga ne saa boo xëyee balaa jant soo mën a jënd loo fa yàgg-yàgg da ngay wàññi julli li tax ngay matal daal mooy mu leer na la da nga fi am ñeenti fan hmm. yaa ko yéene wala xam nga ne même bëggoo ko fi waaye nag force amu ko fi ndax ci misaal oto oto bi la fiy jëlee balaa ñëw fekk nga def lu mën ñeenti fan hmm. waaye da ngay da ngay matal boobaa da matal boo ajuma dikkee bu waree waa dëkk bi da lay war hmm. jërëjëf sëriñ bi bokk mi dafay laaj mu ne gën ñaan moo gën ci ki nga xam ne mooy mi ngi mi ngi mi ngi ci biir itikaaf mu di ko def ak lan mooy sarte itikaaf xam naa waaw xam nga li itikaaf moom ak ah. jaamu yàlla la goo xam ne mm-hmm. dañ cey sart ñaar takkoog jàkk ak koor mm-hmm. li itikaaf ki koy def ci jàkk la koy defee mm-hmm. ba noppi dangay ànd ak wor ba cëgi li ngay def nag ci jàkk ji mooy jàng alxuraan tudd yàlla ñaan ak sàbbaal xeet yooyu waaw fi def julli ak jàng daal ak jàng bi lañ fay def moo tax dañuy dañuy tere di lextikaaf di yër ubbi tere xam-xam ndax lextikaaf jublu gi mooy fóot xol gën a jege sa borom loolu nag dund ak ak di sàbbal yàlla ak di ko màggale ak kañ moo koy joxe ay ubbi téere xam-xam di liir ay masala du jox la loolu moo tax ci sa ci lextikaaf jërëjëf kon sart bi mooy da ngay woor taxoog jàkk ji te bu dee bis yi ngay lextikaaf ajjuma da cee bokk da ngay dem ci fu ñuy julli ajjuma lextikaaf ndax boo leen itikaaf jàkk joo xam ne kenn du fa jul ajuma boo ajuma dikkee da ngay war a génn te boo génnee itikaaf yàqu bu ko defee nag ñaan moom yaay seet ñaan yi gën yëpp mooy ñaan soxla yi àdduna ak ñaan gu xeebu amul Ibn Sina wax ne bu kenn xeeb ci ñaan dara soxla soxla su fajuwul rek problème la mhm. gis xorom bu manqué woon ñëpp am problème mhm. donte bokk na ci gën a yomb waaye dafa jàppandi mhm. kon bàyyi xel euh, ñaan soxla soxla la ñuy yàndal lépp nag loo xam ne soxla su nit kii bu fajuwut ah, mu day ma jafe-jafe kon sañ na koo ñaan lu mu mën a doon lu mu nur nur lu yomb bu ko yàlla yombul du yomb kon yëpp aaju yëpp mën nañ koo ñaan yàlla incha allah jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne eh, ndax lan mooy atteb ki nga xam li nga xam ne maanaa dafay eh, wala aw ñam wala wala ndab yi nga xam ne suñ ciy denc dara dañ il faut ñu def ci sàngara ngir mu wattu ko ba nga xam ne euh, du yàqu euh, ndax dana dagan ñu jëfandikoo ci loola sàngara moom lépp luñ ko dugal mm-hmm. ba mu jaxasoo moom ci anam goo xam ne mënu si loon tàggale mm-hmm. ñam wu sobe la sobe la léegi ndax sàngara sobe la boo ci toggoon aw ñam ba mu ñor ñam wu yàqu na mm-hmm. bu fekkoon ne dañ ko teg loo xam ne mën nga ton nii la ca des la ca des waaye bu dee ñam wu nooy woo xam ne boo ko ci dugalee day rogal la ci biir lépp lay sobeel jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi mu denc jigéen koo xam ne dafa fekk na ëmb na ci waxtu wi ñu koy denc. bis bu jaxasoo moom. Hmm. te du moo ko ëmbal. Hmm. dañ koy tas ba nuy tukki da koy araam ndax jigéen ju ëmb ko ne ci ku ne ci idda la. Hmm. wala laab lu bu tegu ci yoon la. borom këram wàcc ko day iddaw bu fekkee dafa njaalo bu am doom ak laablu la loolu nag ku ci takk soxna jote ceeg moom dalay araam bu faw xanaa muy koo xam ne moom moo ko ëmbal. boobaa dañ tas sëy moom su amee doom mën nañ koo ko mayaat hmm. waaye bu fekkee ne keneen a ko ëmbal moom dañ koy tas seen diggante day araam ba faw ci moso bi amaali waaw mbokk mu ne ndax dana dogan ci jullit bi muy maye deret maanaa maanaam mu maye deret eh, deret joo xam ne maanaa eh, daf koy may ci ab yéefar ndax dana dagan jullit bi may deret ci coobareem ab yéefar wala ndax maye deret ci boppam it maanaa luy ab attem waaw xam nga bu dee yi nga xam ne daan na ci doomu adama tey tey dem ak dikk mhm. maye ko bañuñ ko li ñu bañ mooy jaay ko mhm. moo tax noonu tu fekkee maye la mhm. ndax deret moom ni ko yàlla bindee saa buñ ko dindee ci nit diir bu gàtt mu del siwaat yàlla daal liggéey ci biir machine yoo xam ne mooy togg deret li ngay lekk ci lay liggéeyaat deret ba mi normal léegi nag maye ko ak jaamu yàlla la ndax day dimbali nit te du du wàññi dara. donte bi yëfar la donte bi yëfar la. Hmm. maanaam saa bu borom ruux ci boppam rek. Hmm. léeg-léeg bu soxlaa ndimbal. Hmm. xam nga borom bi noonu na. laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini. wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ñi nga xam duy jullit waaye jëmu jëluñ ngànnaay jëmi leen koo xam nag daa yor ngànnaayam fa séen la faagagal ko comme des ab jullit du ko dimbale waaye jullit boo xam ne yéefar boo xam ne jàmm ngeen seq kooku bu bu xiifee Hmm? Mhm. bu bu sàkkoo ndimbal da nga ko war a jox ndimbal ngir yàlla yonent yàlla Muhammad alayhi salaam ba mu nekkee Madina doon na jëflante yahud yi ba bi muy génn àdduna am na mbubu moo xam ne da koo tayle woon ci ab dund bu mu leboon ci ab yahud yi dégg nga amoon na gone yahud yi goo xam ne ci këram la nekkoon di liggéeyal yonent bi bi mu wéree dee desam daal déplacé dem kër dem ci kër baayam di ko seeti fekk ko muy sukuraat mu ne gone gi waxal laa ilaaha illallaah man layal la ko suñu borom boo léegi gone gi siggi xool baayam baayam ne ko waxal li li la Muhammad wax gone gi ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah daal di faatu yéen tu jóg ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne musul na ko ci sawar te jaaree ko ci man kon jëflante ñoom ci anam bu baax lislaam da koy gërëm hmm, benn waay nettali na moom yéen tu salaam ne koo xam ne nii ab kël bu la fekk mu mu mar hmm. fekk moom daa romb lu mel ne mu dugg ca fexe ba naan génn gis kalbu bi di génnew làmmiñam ngir mar mu wax ci xelam ne jaay yàlla ji li ma daloon moo ko dal <clears throat> daal di summi aw botam dem dugg ca ndox ma fexe ba tànk ñëw jox kalbu bi bi koy yónnatu nettalee daa wax ne kooko ci loolu la ko yàlla jéggale saxaaba yi ne ko kon mala yi tuyaabaa ngi ci ca la waxee woon ne fii kulli kabidin ratbatin ajr rasul tuyaabaa ngi kon rawatina nit rawatina nit koo xam ne mën naa am loolu mu koy defal mën na caa jaare ba dugalu ci lislaam macha allah jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafay dafay wax ne ndax dana dagan ci jullit bi muy jaay lu araam ci ndigalul waajuram laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatillah lépp loo xam ne mooy yàlla la menn mi def amul sañ ñu topp la ci hmm. waajur na lool ci yàlla waaye nag dee ko topp ci ci mooy hmm. mi dafay laaj mu ne ndax dana bàkkaaru ci jullit bi mu ñàkk jàng alquran ci bis benn bis maanaam maanaam xëy daal bañ a jàng alxuraan ndax loolu bàkkaar la. xëy na du bàkkaar waaye nag xañ sa bopp yëgu rëy la bu dee murit nag moom xët ndigal la. bu dee murit waaw. sëriñ bi nee na kullu muridin bi yelootu fal yu dim tilaawatan li xayri dikrin xatu si murit bu xëy jàngut alxuraan xët ndigalu sëriñam lu ma tax am lu say la. jërëjëf mbokk bi mu ne ndax dana dagan ci jullit bi muy jox loxo Euh, jigéen gi nga xam ne majeurut maanaam euh, xëyri baale maanaam jigéen koo xam ne majeurut daal nga di ko jox loxo ndax dana dagan ci yow. waaw koo xam ne moom àggagut fu ñu koy xememe. Mhm. ñaare ci lislaam du wax ay majeur nit dana àgg foo xam ne majeur gut waaye nit ñi mën nañ ko xememe. Mhm. kooku la bañ moom laal yaramam. Mhm. ku fi àggagut moom terewuñ ko waaye nag li gën ci yooyu bañ ko tàmmal nit ki. ñuy bëgg jox jox joxante loxo ñu bañ koo tàmmal ji gone gu jigéen ndax bu màggee da koy bëgg a wéyal. moom. yonent yàlla Muhammad moo waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam inni la usafihu nisa te booba kat fi mu ko waxee saxaaba yi bu ñuy jaayante dañuy dikk mu tàllal seen ñu tekki loxoom jigéen ñi dikk na ko tàllalal mu ne man du ma saafoonte jigéen kon xam nañ ne loolu lu jàllu moo taxoon sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu waxoon ne jigéen du saafu xonte ngay sukk nuyoo góor gu ko jox loxo su bis baa ngeen layoo góor jigéen ñuy saafu xonte dëgganul xaraam na téere baa ko wax bul ma la jël hmm. kon it bokk na ci mat jaawe du suñuy aada ñu nit du suñuy aada diini gërëmu ko ay góor ak jigéen di joxante loxo ci hmm. nekk am na seen aada ndax bari na ci yoo xam ne nii ci yooyu la tàmbalee ba jur ñawtee fu mag lépp luy moytu loolu ko mooy nit ki nag loo bëgg mu màgg mu màggee ko da ko koy teel a tàmbal man shabba ala shay'in shabba alayhi hmm. nit lu màgg ca lay màggat te nit lu màggat ca lay faatu te nit ku ne lam faatoo ci lay dekkiwaal ba léegi yëpp mën na bàyyi xel. jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi muy liggéey alaamatul masihiya maanaa euh, aw ay yakuna maanaa dana ci jullit bi muy liggéey comme maanaa bu ma xam bijouterie la wala ko xam ne day liggéey ci wàllu weñ muy liggéey ci li nga xam ne xam na ne lii mandarga yu yu yu masiha yi di di jëfandikoo lañ comme lu mel ne croix yi. waaw bu dee lu ñu jëfandikoo seen bu dee lu seen diine moom daganut ndax ñoom kenn du jàppalante ñoom ci diine mën nañu jàppalante ñoom en tant que ay nit ci àdduna mm. li ngeen seq ci àdduna mun ngeen ci jëflante waaye lépp loo xam dañ koy dëgëral seen diine mm. dëgganut ab jullit jàppalante ci ñoom. kon daal bi warut a jullit visiteur bi jullit warut a bi. ab croix boo xam day wane. di ko campagne di ko campagne ne moom yëfër la te sax rek mu mel ne te dañoo bari ci àdduna loolu. mu ngi ko jaay tamit. maanaam lépp loo xam ne seen diine lañ koy dëgëral rek. def su jëflante ñoom waaye nag doon gi ñu doon nit jaay aw ñam ak yu mel noonu lañ seq ndax ay nit daa mën a jëflante waaye nag lépp loo xam ne seen diine lañ koy wooteel wala day jëmmal seen diine moo xam tabax mën nga leen tabaxal kër waaye mënoo mënoo leen tabaxal église maanaam maçon bi tabax tey mën naa tabaxal ku dul jullit kër waaye mënut a tabaxal ku dul jullit ab jaabukaayam borom entreprise bi nga xam ne maanaa dafa yor entreprise ndax sañ na bu yéeb catholique yi wala ñi jullit di <coughs> defar église sañ naa sañ na ca participer. mooy kon mu ngi participer ci taxawal ak neen participer ci taxawal ak neen loolu ko def sëñ Sëñ Abdou. Mm, jërëjëf <coughs> mbokk mi mu ne ndax dana dagan ci euh, ki nga xam ne waajuram dafa bàyyi alal ju araam maanaam su faatoo ndax doom yi danañ doon alal jooju xam naa xaw na niroog laaj bu jàll léegi. waaw loolu jàlloon na ci ab laaj Sëñ Abdou. Mm-hmm. alal joo xam dafa xaraam bu dee alal jàmbur. Mm-hmm. kenn du ko doon kenn du ko jox kenn dañ koy delloo jàmbur. Mm-hmm. bu dee alal joo xam ne niñ ko fàggoo moo léwut kenn moomu ko. waaw nag xaw naa ko daf ne ba bàyyi boo xam ne da doon jëfandikoo alal ju araam ndax su faatoo ndax doom yi danañ ko doon. waaw mooy loolu ba tey. Hmm, maanaam ni mu amee alal ji rek la ñuy xool. bu dee alal ju mu doon sàcc nañ ko delloo ñoom ko sàccoon bu fa nekkul jox ko seen njaboot. bu dee alal joo xam ne ni mu ko fàggoo mu baaxut moom moomu ko waaye nag njaboot bu nekkee ñàkk mën nañ ko jël. Hmm. waaye nag jëluñ ko ngir ne dañ ko doon dañ ko jël ngir ne alal ju ñëpp bokk la te ñoom ñu soxla ko jox leen ko. lan mooy àtteb ki nga xam ne euh, daf koo faat benn rakk ci jullit àjjuma. ñoom sëlmalee na jóg julli benn rakka jàng ci fàtteeku saar te béral ko. Hmm. bu fekkoonte ne daay ñëw ci rakka bu mujj rakka ba fasu bu mujj ba maanaa ilimaan rukkoon ba siggi mu door a ñëw. Hmm. kabar ànd ak ilimaan. Hmm. bu ilimaan sëlmalee ñeent rakka la julli yàlla ko waa tisbaar la foqaay cax naan benn waaye ngi nii boo xam ne dafa yéene waaye la mu yéene julli ko lim julli it yéene ko te julli ga wér moom daa ñëw yéene ajjuma te julli ajjuma tisbaar la julli hmm. ba noppi tisbaar ji wér nawa walam yu salli wa salla walam walam yanwi aw hmm. cax cax ci fiq hmm. kooku it nag bu fekkoon te ñëw na xam ne rakka raw na ko te mu xam jeneen jàkka joo xam ne julleeguñ na daw dem mu gën mooy na dem julli ji ko bu fekkee nag loolu amul nag mu door a julli tisbaar insha lan mooy àttab nga xam ne dafa am ay julli yu bari raw ko te te te mu raw ko ci lu dul ngànt xam naa xaw naa niroog ci li doon leeral léegi. waaw na xam ne ay bori julli rek. waaw ginnaaw moom moom moo ko amee. Hmm. na ko fay bidon ko ci benn. alors ah, ñaari cër mooy dana fay bori julli. ba noppi tuub ndax sàggan gi bu bàkkaar bu rëy bu fekkonte ne ngànt la. Hmm. du ci am bàkkaar da koy fay rek. Hmm. waaye ginnaaw nag moom loolu ak jubadi la. kon da koy tuub dellu ci moom ci masab Maalik am na nga masax yi wax sax dañuy wax ne ku bàyyi julli. te tay ko ñoom nee nañ loolu moom kenn mënu koo fay ndax dafa rëy ba jéggi day ñoom loolu ñuy wax waaye ci mësab mal moom danga uddutee borom julli la bu ne da nga ko fay ba noppi nag boo tuubee tuub gu sell nag yàlla jégal na ko bokk na ci li nga xamee tuub nag nga fas yéene bu ko defaat waaye maa def ko ba noppi tuub te fas bu dara xewatee nga defaat ko nag loolu tuub gu sell seen laat sa turandoo daana jàngale lu am solo ne tuub gi sell mi ngi mel ne joggew xal ba nga koy joggi téyoo ko mm-hmm. te ba nga ne teg sa tànk nga ko teggi te réccu nga loo teewoon a xool suuf te li des si moom fosoo fa yéene tagal sa noonu la tubb sell gi nag jërëjëf sëñ bi naa laaj bi mooy suñu laaj bu mujj ci jataay bi euh, mbokk bi dafay laaj mu ne lan mooy àtteb julli jullit bi nga xam ne maanaa du julli salaatul xiiday nii maanaa jullit it ngir lan waxtu woowu daal day fekk mu nekk ci liggéeyam boo xam ne mënu ko dagg waaw julli it de sunna mu akkada la hmm. ci koo xam ne ajjuma war na ko kon góor gu nekk mag moom sunna màkk dara lu am solo nag dañuy bëgg bu ñëwee sax ñu génne am na soxna su wax nee ne même jigéen ñi nga xam ne am ngànt dañ daan génn julli it buñ julliwut it fekk ñaan gi kon yiw la dañuy wax sax ne ku julli gi faat sopp nañ nga julli ko yow dong kon xëy na bu fekkee euh, tënku nag ba mënu koo def te li jaadu woon ci ab jullit bi su mel na mu fexe ba bokk ci yi muy am sañ dem julli ji moom nga xam ne foo liggéey fu ne nga fexe ba signé leen xamal leen bis sàngam bi sàngam bi moom daa bokk sama diini ma war ko julli donte dañ ma koy dagg duñ ma ma ko duñ ma ko fayit dañ ma may ma julli ji waaye bu ngant amee dafa ko yit nag sopp nañ mu beru julli ko moom waaye nag boobaa du xub day julli ñaar rakkaa rek seen hmm. jërëjëf xam naa kon ñu bàyyi la nga tàggoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñu topp. waaw kay jërëjëf sëñ Abdoulaye xam naa dellu du nuyu bokk yëpp di leen ñaanal ñu ñaan yàlla def ñu dégg ak topp ñaan yàlla yit nangul ñu yëngu yëpp te barkeel ko mhm, di baalu ñëpp àq di sàkku ñu baal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdourahmane jërëjëf it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission bi di gàggantiku ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir di sant bu baax it mbokk yi nga xam ne ñu ngi yónnee ay laaj ngir yittewoo seen diine waaye ñu fàttali leen ne numéro yi ñu ko doon yónnee Euh, dañ ko soppi képp koo xam ne am nga laaju diine boo bëgg a yónnee mën nga ko yónnee ci 78 689 28 28 78 689 28 28 ñu ngi sant sëñ Abdou Khadir Bousso mi réalisé émission bi ak sunu caméraman yi ñu àndal sëñ Cheikh Diop sëñ Bàcc Ba di sant yi sëñ Ablaye Lo mi nga xam ne moom la ñuy àndal liggéey bi di leen jox dig daje ci seen beneen jataay gàggantiku incha allah li ñaan suñu borom defal ñu tawfeex asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم